président d'Assemblée nationale Abdou Mbaw ak délégation ngeen àndal présidente Mbarou Dieng présidente Seynabou Ndiéguène ma ne Thiès département jël nañu ndam li l'ensemble des maires et des responsables yu département Thiès ñoo di seen i càmmiñ ñi ngi taxaw ci seen wet bi am kontante ak mbégte ci seen ndaje bi monsieur le ministre d'État xoolal kaar yi ñi nekk ci kaar yi bari na ñoo xam ne wàcce guñu te gis nga mbooloo mi kon koor gi jàppu leen waxal président de la république ne ko département Thiès Benno Bokk Yaakaar madame la la maire Mbarou Ndiaye madame la présidente Seynabou Ndiéguène honorable député Fatou Sène seen càmmeñ yi nee nañ rusloowu leen leen kon Thiès département l'assemblée de maires ñu ngi ci kaw turbine bi ñoom ñëpp ñëw nañu seeni jigéen ñëw nañu ñoo ngi feddli seen coloré di yeesal seen engagement ci Benno Bokk Yaakaar ci wetu président de la République Macky noo ci weeru koor ñu sant jaañ ñépp dañuy am gàllankoor ndax koor bi waaye loolu feeñul benn yoon ci dëggal ak engagement bu jigéenu département Thiès département bi nag 2012 ba léegi dañoo takku dañoo am fayda dañu jël engagement te dara mënu leen kenn mënu leen a dëpp ñi ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ànd ak président Macky Sall kon nag jigéen ñi noo leen di ndokkeel noo ngi leen di ndokkeel ci weeru koor bi leen ndokkeel ci ndaje bi di leen soññ nanu gën a takku nanu gën a am fayda nanu gën a am engagement réew mi bari na ay picc yuy sab picc yi sab bu ñu nu mën a tourner bu nu leen déglu nañu jublu ci jubluwaay bi te mooy borom autoroute yi mooy borom terre bi moo àggale aéroport bi mooy borom stade bi mooy borom chantier yi mooy borom Sénégal émergence kii jëmale réew mi ca kanam kon jërëjëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ministre d'État département Thiès daanañ kontaan kontaanati nañu délégation bi nga jiite am na solo ngeen ñëw àndandoo nekk ci seen biiri jigéen taxaw ci seen wet di leen jàppale loolu dafay tegtale am solo goo xam ne amal ngeen ko solo département Thiès mënu la ñàkk ndax ci ngeen bokk wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum waa région Thiès su ma nee waa région Thiès damay génn département bi député Sera Ndiaye jógee Mbour dugg si ci département Xombol département Thiès may wax salaamaaleykum waa département Thiès salaamaaleykum waa directoire des femmes du département de Thiès di wax salaamaaleykum waa Xombol di wax salaamaaleykum les quatorze communes yi nga xamante ne nii ñoo fi teew tey jaruma leen di lim kenn ku ci nekk mobiliser nga gis nañ mobilisation bi macha allah kon maa ngi leen di sargal di leen nuyu di wax ne kontaan nañ ci yéen. nuyoo bi nag bu ma nuyoo département bi ba pare dama ciy teg euh, notre coordonnateur départemental muy monsieur Augustin Tine su ma nee quatorze communes dama nuyu waa Xombol ba pare mooy quinzième bi te comme ci quinzième bi laa dëkk tey waa Xombol ñoo aye ci seen kàddu laay waxee moo tax may nuyu les quatorze yi nga ñoo ñu fekk si tey di nuyu suñu coordonnateur monsieur Augustin Tine di suñu càmmiñ yàggu ñoo gunge di suñu xarit am taxawaay lool ci jigéen ñi ndax dañuy wax naan doole jën ndox Augustin jigéen ñi département baa ngi nii sa jigéen ñaa ngi nii damay faral di wax ne ñoo njëkk a parane Macky Sall te ñoo koy fal kon département léegi Benno Bokk Yaakaar moo ko moom ba ciy teg le ministre Pamadou Ndiaye di ci teg Abdou Mbow suñu càmm ñu Abdou Mbow defe naa ne ba ñu jógee ba léegi ba ci quatrième édition bi mosoo ñoo taxawlu mosoo ñoo tajal say bunt yaa ngi ànd ñun yaa ngi ñuy gunge yaa ngi wut ay fonds di ñu ko andil kon vice président assemblée nationale kontaan nañ ci yow bu baax di nuyu ministre Ibrahima Ndoye moom itam taxawaayam musul changé ci département Thiès parce que dafa xam ne aussi département la moom moo ko moom di nuyu délégation bi Augustin àndal yëpp waaye nag bu ma leen ba pare damay joxe nuyoo monsieur le maire Mbengue Boye dafay ñëw ba ci yoon bi oto problème ak oto bu ko jëliwaat ci péage bi léegi mu dugg xombol mi ngi excusé wu ci retard bi nga ne dépendrewul ci moom euh, oto moo demee noonu kon maa ngi jottali nuyoo d'un instant à l'autre dina agsi fii incha rabbi di nuyu madame Aliette Ndaw troisième adjointe au mi ngi foofu ci kaw ñoom si nag ci sama nga xamante ne mooy mairie douze communes ñooñu ñooy suñuy càmmiñ sëñ Fallou wax na léegi ci seen tur Momar Ciss ma jël nuyoo maire yëpp teg ko ci wax ni jigéen ñi ngërëm la kontaan nañ ci sa di nuyu honorable yi fi teew su ma nee fi teew honorable yi am ngeen gan tey gan gi ngeen am mooy kan mooy xale bi nekk ci plateau télévision yi di défendre le président Macky Sall mooy xale bi nga xamante ne nii allah bu taxawee assemblée wax ñu xam ne cadre mooy wax madame Sira Ndiaye honorable ñoo lay dalal jàmm fii ci Khombole di la wax merci beaucoup di nuyu ñaar ñoo xamante ne nii bu leen neexoon tey ñu dem tëddi su leen neexoon tey jii du ñu accompagner ndax mënoon nañu ay mag lañu muy ñas le gardien du temple laa koy woowee le permanencier l'infatigable ñas xombal ak lay nuyu di la delloo njukkal tonton Mor Niang mënoon nga ne mag laa gone yi buñ ma soxlaa nañ ma fekk si mais tonton yow yaay jóg fekki gone yi waxtaan ak ñoom dalal leen yedd leen ba ñu teguwaat ci kawraay bi kon mag ñu mel noonu buñ amee ci suñu biir suñu ñëwee war nañ leen a delloo njukkal maa ngi nuyu monsieur Daouda Tine de Touba Toul monsieur Ly Thomas maa ngi lay seen maa ngi lay dalal jàmm ak si nga sa dëkk merci beaucoup donc bu ma naree bu may lim lim bi du jeex du ma juum mais dama dul matal ku ma ci tuddul nga baal ma waaye nag dama ay kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm yoo xamante dama koo seq ak sama nawle jigéen yi nga xam dama àndoon ñoom depuis dix ans ñuy liggéey te dara ñaawul damay faral di wax ne jigéen ñoo man ci tool yi ñoo man ci kër yi ñoo man ci diine ji ñoo man ci politique bi kon ma leen di wax ngeen tàccu seen bopp def yu ngërëm yi ma xamante ne dama ko war a dama koy tàmbalee ci monsieur le maire mi ngay booy hésité wul benn yoon sur les lépp lu ñu def fii moom moo ñu ko jox kon ñu koy sant di ko gërëm di gërëm monsieur Mamadou Lamine Gueye sunu càmmiñ la bi mu yëgee bis lu mu mën def na ko ci kon Lamine ak délégation bi représenté Lamine bu ngeen demee ngeen jaajëf ne ko jigéeni département bi kontaan nañu di gërëm monsieur le maire Ablaye Tine ndax tamit moom itam ba mu yëgee bis bi man def na ko ci yeneen maire département bi su ma ci tuddee Fallou Fall tudd ci Ahmed Dieye tudd ci Momar Ciss te moom laa tegoon yóbbu ci loxoom jàpp naa ne ñëpp nuyu nañu leen Nogay Nogay xam naa ne Momar Ciss la ñor ma nee weeru département nga ne Momar Ciss mais yéen moomu leen ko Momar Ciss ñun ci moom lañu bokk tamit li ma waroon a jiital mooy imaam yi xobbal yi imaam yi xobbal ba ñu yeewoo ci suba huit ci jumaa ji lañu dugg wàcce kaamir ñaanal ñi nga xamante ne dañ daan ànd ak ñun démb te yàlla moom leen tey fekkewuñu ñu mën cee tudd Seynabou Ndiaye Thiénaba man cee tudd Fama Diop barki démb fii ci Kaba Ndiéyène Sira ak ñeneen ñi nga xamante ne nii dañu doon ànd ak ñun te yàlla moom leen huit heures ba neuf heures suñu imam yu ñaawul yi ñu di leen wàcceel kaamir kon yàlla leen yàlla jotale ci ñaan gi euh, ci barke Seydina Muhammad may nuyu koo xamante aussi euh, ancien maire la fii ci Xombol te Xombol jéppiwu ko mu am taxawaay bu ci bis muy monsieur Babacar Ba defe naa ne barki bi femme di réunion li mu ndimbalam foofu ko joxee ma jottali ko fi ñu toog te bu ko neexoon ne nekkoon naa maire jóge fi ba keneen remplacé ma donc bu ma neexee ma dem toog ndax la ma waroon def naa ko mais Babacar Ndeye Samb madame Ba moom lay yóbbante nuyoo ci Babacar Ba kontaan nañ ci taxawaayam macha allah. di nuyu chef de quartier yi di teg nuyoo bi ci loxo Adama Ndiaye mi nga xamante ne moo yore mooy délégué de quartier yi moo yore seen kàddu Adama nuyul ma chef de quartier yëpp ndax ku ne xam na ne chef de quartier. président de la république lay représenté ca ba mu nekk. yéen a ngi joué seen rôle ba mu mat ci seen taxawaay rafet na wéetalu leen ñu benn yoon jigéen lañu te fu ñu taxaw ngeen taxaw di nuyu sama camarade adjoint au maire yi fi teew yépp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo maam Fatou Ndiaye maam Fatou nuyoo adjoint yépp teg naa ko sa loxo nga jottali ma ko adjoint maire yépp Augustin monsieur le ministre xanaa sa dal na sa département ngi nii say jigéen a ngi wow na yàggale leen wow na ñu ne na ñu ne na ñu ne maroon na ñu ne maroon na lii nag lii nag dañ ko organiser quatre fois trois yi ñu def ko Thiès benn bi ñu indi ko fii ci xombol ndimbal la wax ci thème bi ak pay ndimbal ak pay ku ko wax muy jàmm ndimbal ak jàmm ku ko wax njaboot yi nga njaboot yi nga ko waxal yi ci amul jàmm taloo def dara taloo lijjanti dara kon thème boobu jigéen ñi ñoo ko gën a moom ni góor ñu nekk ci weeru koor muy weeru ndimbalante pourtant bi ñuy jàpp gis nga xalaatuñu woon ne fukki fan ci koor gi ñuy jub fukki fukki fan yi nga xamante ne nii moom moo mujj ci weeru koor sargal fii ci xombol ki ci jiitu mooy monsieur Augustin Tine notre coordonnateur ma bëgg ngeen teg ko bu baax a baax a baax ci ci topp nag damay wax fii ci xombal ne mooy Darlin Koor ku bëgg ne koor ku bañ ne koor mu yore ministère de souveraineté jugoo xombol yaroo xombol ay mbokkam jëppewuñu ko ay xaritam jëppewuñu ko ku mu àndaloon ba mu nekkee xale moom lay àndal ba fii mu toog te waroon nag déclassé boppam te defu ko kooku li nekk ci turam man du ma ko tudd ki nga xamante ne kër bu nekk bu mel ne koo jotee dugal na ko ceeb dugal ko dawlin ku feebar mu faj la aada joo am dem ci moom ñu bokk ko région Thiès bokk ko département Thiès mu ngi ñëw fii ci xombal kan la ci may wax kan la gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant te jéggalu yax bay aksi du suñu coobare jamono ji yenn say teg ci saw yoon loo xam ne nii danga koy nangu rek te aksi ñoo ngi nuyu monsieur ministre d'État directeur de cabinet politique du président de la République, Augustin Tine. di monsieur le président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow moom laa ci waroon a jiital ba pare le ministre de l'artisanat di ko ziar di nuyu le ministre Ibrahima Ndoye di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu les responsables politiques de la coalition Benno Bokk du département de Thiès di nuyu les honorables député du département de Thiès di l'honorable Fatou Sène l'honorable député Maymouna Sène di nuyu tamit l'honorable député du département de Mbour qui a franchi les frontières des deux départements pour ñëw teewal l'honorable député Sira Ndiaye sunu yeex bee aksi gis naa fi le maire Daouda gis naa fi le maire Talla gis naa fi le maire Fallou Fall gis naa fi le maire en dehors de casquette ministre le maire Augustin Tine bi ma yeexee egsi maa ngi doon suivre en direct ci réseaux sociaux yi ñu ni le maire Fallou moo dalal gan yi li ñu koy tekkee ñun rek mooy au delà ñetti arrondissement yi nga xam ne nii ñoo nekk ci département de Thiès ak maire commune yi fi nekk yëpp fii ci arrondissement de Thiénaba ak juróomi commune yi fi nekk yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi gannaaw nag ba ñu bokkee li nga xam ne nii mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar puisque les maires des communes qui nous entourent sont tous des maires de la coalition Benno Bokk Yaakaar kon bu dee le maire Fallou Fall moo dalal gan yoo xam ne ni ay gani Xombol lañ mooy Fallou Fall mooy maire Xombol en même sañ na ko def na ko merci beaucoup grand frère ñoo ngi nuyu soxna Seynabou Ndiéguène di nuyu la responsable communale de la coalition Benno Bokk Yakaar première adjointe au maire de Khombole présidente de la section parti socialiste de la commune de Khombole membre des différentes composantes du parti socialiste membres des différentes structures la coalition Benno Bokk Yaakaar à propos dans le département bu ma ko limee ay mandargaam war ngeen koo mën a tudd turam muy soxna Mbarou Dieng. soxna Mbarou lii bu amee ci biir commune de Khombole yow yaa ñu ko indil olof daf ku dul wuy ji kenn du la kenn du la wuy si ba sonn wuy ji nga guddi wuy ji nga bëccëg tey waa Thiès département de Thiès ñëw ñëpp kon lii bu amee biir Fongol mobilisation bu mel ni toutes les femmes du département de Thiès se sont retrouvées à Fongol ñun yow yaa ñu ko defal kon li nga doon wax naan Hubble sera sur orbite il a déjà mis sur orbite. ñoo ngi nuyu imam ulema responsable on euh, notable yi nga xam ne nii ñoo nekk biir Hubble ak département bi ko wër yëpp. bi may agsi sànq maa ngi nuyu imam Pape Ndiaye ak imam Baro ak imam yi ñu àndal yëpp ci biir wëru gi ñoo ngi leen di di leen bal àq di leen balu àq di ñaan yàlla fan yi ci des muy fanu njéggal fanu xéewal fanu mucc ak fanu lépp loo xam ne ni ab jullit sañ na koo ñaan ñoo leen ñaan ñoom ñu ñaanal ñu ko mu dal ñu monsieur le ministre d'État Augustin Tine directeur de cabinet politique du président de la République yow ak honorable député vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow boo ko reetaanee mu reetaan la boo xàccee mu xàcc boo dóoree mu bu dagg say loxo loolu nag la ñu bokk ñun ñëpp fii ci biir dëkk bi quel que soit quel que soit les petites et minces velléités qui peuvent se passer ci benn échéance boo xam ne nii benn bés la rek ay waxtu la rek ay seconde la rek ndax da jël benn bulletin dugal ko ci enveloppe dugal ko ci urne différence boobu lu toll ni benn këyit bu doxee suñu diggante mën nañ koo génne seppi ko sànni ko àndandoo liggéey suñu dëkk àndandoo jàppale président de la république àndandoo ngir Sénégal fi mu ko jëmee fi mu ko indi tey ak fa mu ko jëmee di eggale ko fa ak jàmm ngi nuyu bu baax naam deful politique waaye cër la bu ko président de république jox son excellence Macky Sall jox ko doomu xombol muy tey ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ku honoré benn doomu xombol honoré nga xombol waa kon le président de la république a fait de chaque xombolois un ministre de l'intérieur loolu moo tax ñoo ko yi gërëm bu ko baax a baax ku am njariñ la ku taxawu dëkk bi la ñoo ngi ñaan monsieur le ministre d'État monsieur le président de l'Assemblée nationale ngeen porter ñu les plaidoyers qu'il faut les plaidoyers qu'il faut pour que ñu gën a ñor ci Xombol mooy li ñu gën a ñor ci Sénégal mi daal di koy jëmmal jëmmal ko pour jigéen ñi jëmmal ko pour ndaw ñi jëmmal ko pour liggéeyu ndaw ñi jëmmal ko pour financement jigéen ñi jëmmal ko pour gunge mag ñi jëndal ko ci lépp loo xam ne nii mooy lu baax lu jëm ci biir Khombole muy njàng di santé di yoon di infrastructure lépp loo xam ne nii Khombole yaakaaroon nañ ko doon ko jënd démb kon yéene yooyu ñu am ñeneen ñi nga xam ne nii dañoo génn ci échéance bi amoon même yéene bi ci Khombole yàlla dogal muy ñun ñooñu ñëpp la ñuy boole ñun ñu ànd bokk liggéey. on lance un appel à tous les Khombolois quel que soit foo mën di def à tous les bords ñu xam ne njëriñu Khombol ñu ngi ci taxaw di ci liggéey mu ngi ci ñu ànd di àndandoo di liggéey di bokk di yëkkateendoo di dóorandoo un clin d'œil à notre ami sama rek Mouhamadou Lamine Gueye di ko ziar bu baax a baax a baax ñi ko fi nekkal di ko fi toogal ñoom i tamit nañu dem ñu yóbbante sama nuyoo ci moom ne ko loxo yi ubbeeku na kanam gi ubbeeku na xol bi ubbeeku na ngir ñu ànd liggéey Khombole asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu te jigéen ñi département de Thiès précisément le directoire des femmes du département de Thiès ñoo bëgg a sargal Seynabou lu tax lu lu lépp gàpp gàpp ñëpp xam nañ ne mën naa daw te nag Seynabou balaax bi tàngee la dugaloon loxo kon lu mën a xew rek dañuy interroger histoire ñun jigéen ñi ñu sargal ko ngir doonay jëmmam ak bu barki démb ak bu tey remettre ko un cadeau Seynabou sa mbooloo mépp a taxaw nga mobiliser département bi département bi ak kër moom élage ci commune Thiès ñëw fii Mbour ànd ko sa sœur Mbéru Dieng mu nekk la coordonnatrice de l'événement aujourd'hui Xombol à l'honneur salaamaaleykum waa Xombol salaamaaleykum waa département de Thiès maa ngi leen di nuyu yéen fi teew ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko jox ki nga xam ne mooy kilifay jotaay bi mën nañu wax tamit ne moom mooy kilifa département de Thiès ndax il est le coordonnateur départemental de la grande coalition de la majorité présidentielle muy la coalition Benno Bokk Yaakaar le ministre d'État monsieur le maire Augustin Tine ñu ngi nuyu di ko sargal bu baax a baax a baax parce que nag ku ñëw département de Thiès di nga sagal le ministre l'infatigable Augustin Tine, le fidèle, le loyal au président Macky bu ma ko nuyoo ba pare nag dama ciy teg monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale muy suñu mag di suñu xarit di moom tamit koo xam ne fierté wu région de Thiès la mais fierté wu alliance pour la république la ak Benno Bokk Yaakaar muy sama mag Abdou Mbow ma koy gërëm di ko sant bu baax li ma mën a wax ci Abdou ni ko waa Thiès mën a waxee mën naa ko wax mais dama koy gàttal magay booy mu joxal ma ko les maires du département de Thiès ma bëgg a ñëw nag nuyu une grande dame une lionne du président feu président Ousmane Tanor Dieng du parti socialiste muy la présidente Mbër bu Dieng Mbëru Dieng su ma ko xamee Seynabou Ndiéguène moo tax Mbëru Dieng su ma ko xamee am na ku ko wax sànq dañuy demalante diggante Mbour ak Thiès di daje si ay activité politique ma ràññee ci fullaam ci faydaam mais ci engagement elle est socialiste dans l'âme elle est kon bu ñu jëlee tey conférence quatrième édition femme Benno Bokk Yaakaar décentraliser ko dans la commune de Khombole ndax moom ak yeneeni jigéen yu seq kuréel gi mënuñoo jël lu dul lu mënuñoo def lu dul jaajëfal ko rendre ko hommage parce qu'elle le mérite mais nag may daanale nuyoo bi gudd na ngeen baal ma ci koo xam ne suñu mag la suñu xarit la c'est une pionnière du parti c'est une fierté aussi de l'Alliance pour la République li ma wax ci Abdou Mbow mën naa wax lu raw loolu ci Seynabou Ndiéguène Seynabou dina kaf dina ree mais Seynabou boo koy nax naxee ko ci président de la république mu nekk jàmbaar yéen waa département de Thiès ngeen jël ko jiital ko mu nekk la responsable départementale des femmes de Thiès mais saa bu ñëwee réunion li ngay xàmmee Seynabou mooy xadaar bi muy am pour ñu jox Thiès cëram xadar bi muy am pour président Macky Sall am ndam xadar bi muy am mooy les femmes de Thiès nekk de femmes de développement lu mu am indi ko Thiès lu mu am Thiès a ko gënal kon grande sœur tey hommage bii la sunu ay sœur rendre danga ko mérité may waxaale ci turu madame la coordonnatrice nationale des femmes de l'Alliance pour la République madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng waroon na teew fii tey ànd ak sunu sœur bu Ndiéguène dafa am empêchement de dernière minute loolu moo tax ñëwul tey ci jotaay bi mais Seynabou rek bu Ndiéguène rek mën na teewal madame la ministre de la femme nday sali Diop Dieng ñu sargal ko moom encore une fois Seynabou Ndiéguène et à travers elle maa ngi sargal toutes les femmes de la grande coalition de la majorité présidentielle bu département de Thiès di leen gërëm di leen sant nuyoo bi gudd na mais kàddu gi dañ koy daanale ci thème bi ngeen indi muy thème bu am solo ku wax femme wax jàmm ku wax femme wax solidarité je pense que thème bi ngeen tànn ñu toll ci dix derniers jours ramadan bi kon thème bi am na solo mais thème bi aussi femme département de Thiès wuyoo nañ ko ndax ci solidarité la ñuy dox ci jàmm la ñuy dox mais ci lu may président Macky Sall ndam la ñuy dox moo tax ma kontaan trop di wax monsieur le ministre Augustin Tine soo tëddee mën ngaa nelaw parce que comme ni ko maire waxee yaakaar naa ne ku gis li xam ne président de la République le département de Thiès est prêt pour donner à son excellence le président Macky Sall une majorité très confortable à l'Assemblée nationale aw bi maa ngi julli ci mi ci Medina di sant sama sëriñ sama wéeru waaye sëñ Mouhamadal Mounir ñu ngay xoolee ala jox man jigéen di sant sama sëriñ sama wéeru waaye sëñ Thierno mu le ministre d'État, de son excellence de la République Monsieur le Premier vice-président à l'Assemblée nationale, honorable Abdou Monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye, Monsieur le HCCT, honorable du Conseil économique et social, Makoy Tex Lio Bissilokoro Mourassi, le maire de Kogoussa. Le premier magistrat de la ville de Congo qui nous a accueillis aujourd'hui, jébalu may magay booy ñu ñu dalal ci dëkkam bii di nuyu sama rakk sama xarit muy honorable député Sira Ndiaye du département de Mbour qui avait politière au niveau du directoire national des femmes maa ngi nuyu Sira di nuyu délégation ministre de la femme di togoon honorable Mbathio Niakhar Sow di ci teg madame la directrice de l' entrepreneuriat féminin en charge des organisations féminines ki xam ne jigéen ñee ko soxal muy madame Ba di ci teg euh, sama rak euh, bu gën jàppee maa ngi leen di nuyu di nuyu honorable député Fatou Sène de Touba Toul monsieur le maire honorables invités en vos rangs et qualités ku nekk maa ngi le directeur départemental des femmes par ma voix di gërëm son excellence le président de la république di la première dame pour son appui constant ndax ñun ay jigéen lañu di sant sunu ministre ki jiite le mouvement national des de l' pour la république je veux nommer la ministre Ndeye Saly Diop Dieng di sant madame Binta Bass représente le ministre Yankhoba Diattara empêché di gërëm délégation réew mi qui sont partis de la majorité présidentielle ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey nag monsieur le ministre man xam naa ni je suis étreint par l' émotion moo tax kaddu gi. Ah. sant ak di gërëm tous les responsables de la commune de Thiès ak du département de Thiès ñu ngi leen di sant ku ci nekk sa tur ak sant. tey nag monsieur le ministre tey dañoo bëggoon ndax dañoo jëm nekk ci weeru koor mi doon weer wu gën ci weer ñu ni ndimbal ak yërmande la ñuy woote pour suñu jigéenu Thiès suñu jigéenu département bi ñu tànn nag xobbal ndax ànd àndum nawle la ñu àndee ak les femmes du département ñun dañoo mën a commune mën a département ndax ku gis jigéen ñii nga xam ni mobilisé nañu ak ñi teeluwaat ñoo ëpp fi nekk les femmes du département de Thiès monsieur le ministre nee nañu pare nañu takkuwaat nañu ndax échéance yi jëm les élections législatives duñ ci dellu ginnaaw takkuwaat nañu remobiliser waat nañu nee nañ dinañu jox une majorité pour euh, une majorité confortable à son excellence le président de la république sargal bi nag maa ngi koy dédié à toutes les femmes du directoire départemental maa ngi koy dédié aussi à mes compagnons de lutte ñoo xam ni au début nous étions une poignée de femmes et d'hommes gëm projet bi je vais nommer le doyen Ousseynou Niass je vais nommer mon camarade Demba Diouf Abdou Mbow Augustin Tine Paul Diak Khar Ndiaye et tant les femmes qui nous ont rejoint après Oumou Diat Ndeye Soukeye Gueye parmi tant d'autres ak les femmes du département maa ngi gis madame Mariam Diop Sylla léegi di egsi ak le collège des femmes de l'APR euh, Ndeye Seynabou Tabara Binta ñu ngi leen di dalal jàmm si Khombole kaddu ngërëm yeeg cant yi wax na ko tey nous avions dit Khombole à l'honneur te fu ñu ñëwee Khombole dem ci sympathie ay responsable ay ci mel ni maire Lamine Gueye xam ni il nous a accompagné jàppale ñu outiller ces femmes depuis le début ñu ànd ak ñun ci organisation bi ñu koy sant di ko gërëm ñu ngi gërëm Abdoulaye Tine qui est derrière jàppale ñu outillé seen femmes boobu ba léegi ñu àndandoo ak ñoom di yëkkateendoo di xàccandoo di dóorandoo mais nag Khombole ne peut pas être en ay grands hommes ñoo fi mës a dépassé ñoo fi mës a cosaanoo sunu xel mi ngi dem si doyen Mamadou Dia sunu xel mi ngi dem si Christian Valentin sunu xel mi ngi dem ci temps assoucis sunu xel mi ngi dem ci Mariam Fapal yi ba tey jii Khombole ñu ministre de l' intérieur yo xam ne démb la appuyé les femmes yóbbu fii ñetti jigéen à la nekk donc kooku mën nañu wax ñu ko fàtte ñu ngi sant sa famille son frère ci ci président ñu ngi koy sant le ministre de l' intérieur di ko gërëm aussi également. di sant aussi nag sa càpp sa ci boo gis dafa mel ni jàppal jiw madame Matou Dieng ma ma seede ci yow Dieng Saala Wende Saala Thioro ma jigéen ma ko ma seede ci yow. yow dama yàlla bu nekk lay jaarale xamal suñu xamee ci politique la ko yàlla jaarale mais su ma demee Porokhane yaa ci gën su ma demee Kër Mamadou yaa ci gën su ma demee Touba yaa ci gën su ma yaa ko def saa la wala maa ngi lay sant ndax lii nga def nii ak ànd ko fànn xongal yi tuutewu ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad di nuyu délégation Kër Mamadou yi eegsi sëñ Mouhamadou Mounir ñu ngi lay sant di leen gërëm jóg leen julli bi ak kilifa diine yi xongal su ma fi ñëwee sama xel dem si Seydi Mamadou Mansour si borom xombol mu sëñ Ababacar si su ma ñëwee xombol sama xel ne su ma jéggee tuuti sama xel dem ci Raba sëñ Mamour fekk ñu di leen nuyoo waa Thiénaba su ma toogee xombol sama dem xel dem si sëñ Ibra Ñaamar mu sëñ Mbacke Madina mu sëñ Modou Moustapha allahumma salli ala sayyidina Muhammad asalaamaaleykum rahmatullah ñu ngi nuyu tey mboolem ñu ci nuyoo bi sunu responsable monsieur le ministre d'État Augustin Tine kooku tey suñ ko tuddee war nañu kontaan ndax taxawaay bii mu taxaw tey njaaxaanaay la moo tax mu am lii tey douze commune yëpp quinze communes d'arrondissement yi nekk ci Thiès yëpp département de Thiès ñëpp ñëw nañ tey loolu jiiteem la loolu ñuy wax leadership di nuyu monsieur le vice-président monsieur le vice-président premier vice premier vice-président à l'Assemblée nationale honorable député Abdou Mbow taxawaayam bi mu taxaw ci jigéen ñi ak ni mu leen jàppalee ak ni mu taxawee ba lii nekk kon moom tey ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko gërëm di nuyu monsieur le ministre conseiller Ibrahima Ndoye di nuyu monsieur le maire tey mi nga xam ne moo ñu dalal monsieur le maire Magueye Mboye kooku nag ñu taxaw tuuti kàddu yi nga xam ne moom la jox def léegi nii wane engagement am au côté du président de la république Macky Sall ba mu waxee ba pare dama ne tey jii taxawaay bi mënoon na fee yem ñu ñibbi ndax li mu wax rek dafa tënk lépp Sénégal ku am ku mel ni président Macky Sall waroo ko wéccoo kenn koo tax tey ànd na ak monsieur Lamine Gueye bi nga xam ne moo fi nekk. pour li nga xamante ne mooy liggéey pour le développement du Sénégal loolu nag ñun ñu ko ci sant di ko gërëm rafet lu baax taxawaay ak kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati léegi. di nuyu tam mboolem maire yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi Olof Njaay dafa ne ku lim juum ma ne déedéet ku lim doo juum ku lim da fàtte waaye su ma tegee lépp ci loxo monsieur le maire Momar Ciss ñëpp jot nañ di nuyu itam ñi nga xamante ne ñoo waral bës bi mooy jigéen ñi su ma nuyoo soxna <clears throat> bu Ndiéguène yëpp jigéen ñi ci département bi bokk na ci di wax ne fii ñu jëm nii dafa am solo fi ñu jëm mooy élection législative toogaay bii ñu toog nii dalal na suñu xel waaye nag dalandi rek ñëpp léegi dañu war a laxasaayu wàcc ci terrain bi ndax enjeu élection yi ñu jëm dafa nekk élection yu mag yu am importance maanaam li nga xam ne le président Macky Sall naa yëpp élection yi mën na tax mu am élection yi tam mën na tax mu naxsaay kon nag ni ma leen gisee seen taxawaay yéen jigéen ñi dafa gën a dalal sama xel pour que ngeen yokk pas-pas en tout cas lenn moom leer na wan ngeen góor yi yoon bi ngeen wàcc waxtaan ak askan wi défendre la bilan du président Macky Sall ndax le bilan du président Macky sàll amul gàcce pour défendre ko fekkee tay lay tali la moo ci gën hôpitaux yi moo ci gën ah, financement des femmes moo ci gën tey jii Thiès nag am na lenn loo xamante ne mi ngi war a ñëw ci fan yi war a door mooy chemin de fer dekkiwaat loolu lépp su ko président Macky Sall waree nar war koo def nit ñi ñoo war a def li nga xamante ne ñoo koy taxawu na ñëpp wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi port à porte. bismillahi rahmani rahim monsieur maa ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay yow yi nga xam ne yaay suñu kilifa fii ci département bu Thiès ci coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur le maire de mon frère ma ngi booy maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax suñu xarit suñu frère le ministre Pape Amadou Ndiaye qui est empêché léegi la fi jógee jël na kàddu léegi di nuyu Serigne Fallou Fall maire de Ndiéyène di nuyu bu baax monsieur le maire Daouda di nuyu bu baax le maire de Kër di nuyu bu baax notre frère Momar Ciss di nuyu bu baax sama frère le maire Moustapha Sarr di nuyu bu baax wax naa ko sànq bi may tàmbali muy notre frère le ministre conseiller du président de la République Ibrahima Ndoye de Diender di nuyu monsieur le maire Ablaye Tine bi nga xam ne démb la ñu àndoon tey doog a ñëw di nuyu bu baax délégation yi fi ñëw yépp muy délégation Maodo Malick Faye di délégation responsable yi ñëw di nuyu ma sœur Ndeye Awa ñoom day su maanaam comme ni ma koy waxee nuyu naa ñëpp di nuyu waaw mais bu paaka kenn du ko jiitu ci mbaram maa ngi nuyu bu baax monsieur le maire de Kayar le maire de Kayar tout à l'heure bi ñuy ñëw ñoo ànd ak suñu coordinateur le ministre d'État Augustin Tine di nuyu la délégation bi nga xam ne moo fi teewal ministre Ndeye Saly Diop Dieye sama goro di nuyu bu baax ñi mu àndal mooy li may woowee les mes jeunes filles de la Cogère muy Adja ñaxaso ak Mam Fall di nuyu bu baax collège département collège communal de l'APR des femmes de de Thiès bi nga xam ne Marème Diop si la moo leen jiite. et comme ni ma leen ko waxee woon keroog xam nga ce qui s'est passé le 18 ñu organiser le directoire ñëw fekk si leen muy département bi tey département bi organiser fii ñoom ñu déplacé wu ñëw fekk loolu mooy confirmer li le maire Maguette wax léegi. mooy tous ensemble pour une victoire éclatante aux législatives de 2022 di nuyu bu baax nag ñi nga xam ne tey jii ñoo waral bés bi parce que tàgge boo gis am na jàppal diw muy waa directoire départemental des femmes de Benno Bokk Yaakaar ñëw taxawu jigéenu Thiès taxawu jigéenu benn Bokk Yaakaar fii ci dëkk bi donc loolu sira je voudrais t'en remercier nga xam ne ñu ngi leen ci sant li may wax nii nag je le dis au nom du coordonnateur départemental parce que Augustin moom ci boppam moo njaboote ñun ñëpp ku nekk ñun Thiès dañu war a sant yàlla ndax dëkk yëpp bu ñu amee coordonnateur tey bu subaa ñu soppi ñun yàlla dimbali nañu 2008 ba tey benn coordonnateur départemental la am te loolu ci yaatam moo ko ko may yaram moo ko ko may Augustin moo ko seede parce que souvent su ma waxee dañuy wax ne mënu maa wax lu bon ci moom dëgg parce que nit su bonul mënoo wax lu bon ci moom nit su amul jikko bu ñaaw mënoo ko koo sàkk sàkkal nit koo xamante ni yara di ko wul mënoo ko ko sàkkal donc mënuñu wax lu dul leneen lu dul di ko sant di ko gërëm di wax ne président nañu ko gën a jàppal nañu ko gën a téel ndax bu ko téye mooy téye na département di wax rek ne le maire Magaye lijjanti na yëf yi parce que léegi la wax ne na nañu ànd ñu ñëpp jox Macky Sall pré euh, euh, majorité ma ba bàyyi ne maa ngi tàllal sama loxo képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal président rawatina sama xarit sama frère Lamine mais loolu wax ji dafa felenkulaay ñun ñii nag du ñu mën lu dul firndeel loolu

Et comme nous avons des opposants qui ne disent pas la vérité, des opposants qui sont dans la manipulation, des opposants qui, ne font absolument rien que pour essayer de manipuler les populations, on les a hier dire qu'ils ont déposé un au Conseil constitutionnel, mais je voudrais dire à l'opinion que ce sont juste des manipulateurs parce que tous étaient autour de la table et se sont tombés d'accord pour qu'ensemble, on puisse augmenter le nombre des députés mais c'est la majorité qui a refusé d'augmenter les ma les députés. di wax rek ne dama bëggoon profiter ci occasion bi pour wax ne gis nañ ay manipulateurs ñoo xam ne sos la ñuy dundee wax ju ñaaw di ko wax suba ngoon naan dañuy déposer conseil constitutionnel recours pour député yi nga xam ne wàññi nañ ko ci liste proportionnelle bi di wax ne. ñoom ñëpp dañoo d'accordoon ci biir néeg ba saal ba waxtaan ne ñoom d'accord nañ ñoom ñoo proposé nañ yokk député yi ñoom ñuy wax député baaxul ñu ñëw ba assemblée nationale ñu bëgg a dellu ginnaaw wan population bi ne ñoom ce sont ci ay manipulation ak sof rek la ñuy dox président de la république majorité bi ànd moom ñu proposé amendement wàññi député yi ci liste proportionnelle bi parce que dañu ne ñun loo xamante ne nii dafay wàññi dépense réew mooy gën lu koy yokk te gis ngeen ne jamono ay journaliste ay activiste ay ñëpp ñu daan wax ne nañ ci première assemblée nationale nañ assemblée baaxul député baaxul ñoom ñëpp tey les masques ñi ngi tombé parce que tout le monde aujourd'hui doit être député tout le monde va aller à l'assemblée nationale et ñoom ñëpp nag xam nga yàlla moom du juum yàlla noppi na démb tey doo ko yàgg nañu gis ay journaliste ay activiste ñu nekk ci télé yi di wax naan nangam naan askan wi naan nangam naan nangam mbërki de moo jaay ngeen gis leen ñoom ñëpp ñu dem conférence de presse woon ne lenn rek moom moo leen mooy bañ président Macky nekk ay opposant ak bëgg réew mi suuf ba pare bëgg pouvoir loolu rek moo leen tax a je pense que tout le vu et aujourd'hui on peut dire que les masques commencent à tomber et inch'Allah nous tous ensemble on va se mobiliser ñi nga xam ne réew mi leen tax a jóg askan wi leen tax a jóg liggéey réew mi leen tax a jóg pour jox une majorité au président Macky Sall maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam. dañuy leen sama séeréer fii de dama bëgg tant que mu ngi bëgg li muy bëgg ngeen koy jàppale ndax maamam maamam bi ko yar da daan tudde fontaine gàddu ay ginaar di ko yóbbu saawam di ziare di fekk am na ci sa baax Malick ndax moom suñu moom te moom nga yaroo gi seeti maamam boobu bi mu faatoo ba mu seeti moo wooye ay mbokk jullitam ñu defar ko ci defaru diine l'islam lislaam ñu denc ko denc biir lislaam boo demee ci armeeru bànqee ya maanaam ci sant boobu te kooku moom mooy adu tekki nii. alors que mu ngi njëgën xëy na sa rawaat sa maam Irak. kon yéen a dama mujjee woo mu ngi France. mu ne ma sant naa ko ci teekin lépp loo xamante ni sama sama war-war la sama digganteeg moom koo ci teekin taxaw na ci Bamba sëpp loolu lañ ci doon seet di leen wax ni kii dama jàpp ni wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni euh, luy war a fas di jàpp ne diine l'islam mu ngi ci kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jégal ma masque bi dama am benn sëkkat bu ndaw moo tax ma yoree masque bi te comme dootuma xale aussi eh, nangu ngeen ni masque bi baax na ci man ci turu monsieur le président de la coalition Benno Bokk Yakaar di président de la république du Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew jigéen di coalition Benno Bokk Yaakaar bu département de Thiès toogaay bi rafet na lool am nañu ci mbégte te incha allah le président de la république dina ko yëg maa ngi nuyu mboolem responsable bu di nuyu bu baax monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye bi nga xam ne ci délégation la bokk le premier vice-président de l'Assemblée nationale di Abdou Mbow ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant di nuyu bu baax bépp député bi fu nekk honorable soxna Fat seen soxna Maymouna soxna Siré Ndiaye maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant di nuyu mbooleem membre du haut conseil des collectivités territoriales di nuyu mbooleem membre du conseil économique social et environnemental di beral nuyoo samay naataangoo samay xarit samay wolore muy le maire du département de Thiès jiital ci monsieur le maire de Xombol monsieur le maire de Khombole di Mëgëy Boy ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bu wér am mbégte ci kaddu yi nga fi yëkkati muy kaddu kilifa kaddu ku am engagement di nuyu sama xarit sama wëlëre le maire sortant Pape Mboup ma ngi koy gërëm ma ngi koy sant di ko ñaanal suñu borom yëkkati ko di nuyu monsieur Lamine Gueye nekkoon candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar mais gis naa Gueye vous avez élevé la barre très haut yaa ngi tàllal loxo dinañu ci njambaasu pour que loolu mën nekk la victoire parce que Khombole est particulièrement une ville politique bi ma nekkee xale xam naa ci dara Khombole est euh, est une ville très politique donc yéen wér na ma ni à Khombole on n'aura pas de problème parce que am ngeen njabas bu neex a neex muy soxna Mbëru Dieng du ci yàq dara. parce que xam naa ni elle est très parce que socialiste te les socialistes sont très politiques am na lu bare lu ñu war jàng ci ñoom ma ñëw ci waa APR ñun waa APR dañoo dugg ñu ci bare mosuñu woon def politique 2008 2012 ñu gagné affaire bi mel ni lu yomb lool ñun ñu boof. yenn saa yi ñu ni kenn du duggu mais dañu jëloon gaal vingt six pour cent la ñu amoon vingt six pour cent pour gagner élection yi au second tour il faut nga am cinquante pour cent mais dafa am ñu ñëwoon ànd ak ñun loolu la ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar de 2012 bi nga xam ni président de la république moo ko tëgg ànd ci ak ay nawleem ak ay naataangoom booba la ñu gagné élection yi avec 58 pour cent cinq pour cent au second tour bi ñu ko gagné mais président Macky Sall di gor nit ñi damay ànd ak ñoom. bu ñu àndul du ñu am dara mais bu ñu àndee kenn mënuñoo gagné parce que jigéen yi xëjuñu fii gis naa ñu ñibbi déjà parce que amuñu fu ñu toog soxna mbëru nag place yi jigéen yi ñu ngi fi woon bañ amuñu fu ñu toog. dañu war a wuti seen Thiès pour que moom pour que nit ñi am fu ñu toog mais dama leen di féliciter dama leen di féliciter soxna Mbarou en tant que coordonnatrice de l'événement soxna bu Ndiéguène en tant que coordonnatrice de Benno Bokk Yakaar soxna Silla Marème Diop ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant da ngeen a war a ànd nekk benn c'est ça la volonté du président de la République te ce n'est pas le moyen de les faire la donc maa ngi leen ci o gëm naa bu ñu àndee lépp mën nañu far député yi président boo gërëm naa leen xanaa gërëmaat kay mais gërëm naa leen gërëm naa leen bu baax a baax ma waxaat ko ma waat ko soxna ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant soxna Fatou Sène ngi lay gërëm soxna Maymouna ñu ngi lay gërëm donc maa ngi soxna Binta Baas ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ngeen jéggal parce que wér na ma ni am na ñoo xam ni ma leen mais war leen tudd soxna Soukeye sama sœur bu ma meree mu tuuti àddina donc maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp di leen wax ni. micro yi fii li ngeen def tey au delà c'est une conférence boo xam ni conférencier bi tout à l'heure dina addu mbooloo mi conférencier bi xam nañu ko ñu ñu xarañ la te dama ni. suñu borom li ñu ko war a ñaan doomi aadama bu ne mooy bu amee lu mu teg sa loxo nga xam lan la te wér na ma ni conférencier bi xam na ni li muy wax tey suñu borom moo ko teg ci loxom te dina leen xutba dina leen waxtaanal ci diine dina la waxtaanal aussi ci addina wér na ma donc c'est la quatrième édition j'ose espérer que la prochaine sera encore plus grande donc ensemble nous allons vers la